salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu àdduna bi yëpp ñu ngi nuyu àdduna bi yëpp di jaajëfal euh, waa Sénégal ñun waa piir bu Ross ñoo nekk ci suñu campagne wàccoon nañ ci terrain bi dem ci kër yi wax ak askan bi xamal leen enjeu bi réew mi toll doonatul sànni xeer wala taal pono moo koy régler li koy régler mooy waxtaan ak nit ñi sensibiliser leen ñu fexe ànd ak xel bu dal

duñu ko choisir comme candidat boo xam ne mën na jëlee réew mi ci guute gi mu nekk. xam na ni Sénégal lépp luy développé réew am na fi ci mbay meek ci càmm geeg ci lu mu mën a doon waaye yorin bi yorin bi ak loxo yi ñu ko teg bu dul loxo yu sérieux loxo yu diiñ loxo yu màndu loxo yu mën a xàmmee li askan bi moom ak li ñu moom buñ ko tegul ci loxo yu mel noonu mooy maanaam lu fi mën a am ci njariñ ak euh, xéewal duñu ko yëg Aliou Mamadou Dia nag compétence am foo ko na ko. réalisation yi mu def ci au niveau international nous nat passé nako kon nak ñun wa Pire ñoy wo sénégalais yépp ñu ngi sénégalais yépp ci jamm ñu ngi sénégalais nous ci sans violence ñu ngi wo sénégalais yépp ci xamni réew mi réew mu waxtaan la kenn ci kenn fi ko fi toj bopam di nga participer ci ordonnance bakay Nous kon ño bokk ndey ño bokk bay nañu waxtaan ci xel nañu waxtaan ci xalaat nañu waxtaan ci dal nañu waxtaan ci Nous fas yéene le 25 les allah ñu ñëpp ñu mobiliser nekk ci gannaaw la candidat Aliou Mamadou Dia votel ko pour mu jël Sénégal yóbbu ko ci euh, réew yi nga xam ne réew yi gën a développé la réew yu gën a yu gën a féete kaw kon loolu la ñuy woo sénégalais yëpp loolu la ñuy woo askan bi yëpp ñu ci biir réew mi ak ñu ci bitim réew mi ñu xam ni réew mi réewu jàmm la réew mi réew dal la réew mi réew mu xéewal la bu fekkee xam nañ ñu nan lañ koy gérer